الإمام في بلاغ دعوته ولاي كل وي ولاي أوت الإمام نحدني على عيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول لأنه خليفتي في أمتي من بعدي وكان موجس يننت بك أي خليفة كشدو دا عيسى أمر يننت بني ما نلين دي سيدل ني دي ويرل ني sama digganteeg Isa lu ñuy wax yonent doxu fi ndabi doxu fi mursal doxu fi te nag mooy doon sama xalifa si sama xeet sama gannaaw waaye fan lañu gis ku ne maa ne démb ma a tey jur du doom mu uutu ka ca palaasam tudde yonent yàlla Isa te Seydina Isa bi mu juddoo dafa andiwaale turam ñu bind ca dënn ma Isa ruhullahi bind ca digg ginnaaw ga on Isa ruhullahi ba ñu andalee bàyyi laay xibaar ba Seydina Isa waay waay Seydina Isa dingalam wuñu senga am na ngaram def na fi jaloore ba dem huwa zul kiramate walaay walaay am ngaram fa jannate waay waay ñu wax ne ci maadiyu ida takallama alhadid wa taqarraba albaid jawaztum zaman almahdi li ñuy waxe lan la du weñ mënoo xëyee ndakaaru añi ji Amérique xam na ñetti weer la yi daan def fi jege woon sori woon jegewul mu ne boobaa boobaa bu leen xaarati maadu yi dem na kilifa yi catholique yi ne mbooleem tegtal yi ñu juge joxoon bi ñu ko calculer li ñuy wax ne benn jouru àllaaxira mooy atu àdduna noonu lañ ko doon calculer bi ñu ko calculer noonu nee nañu foog 1914 dina fekk Seydina Issa si kaw suuf waa c'est 1914 paasewul am gaa yi dañ bëgg a wëlbatiwaat àdduna ñu delluwaat 1914 ba jàll na de et que de l'érection du royaume de Dieu et qu'il en 1915 une grande anarchie sur terre guerre 14 la waxoon ne et des épi une euh, une grande guerre et des ci la Seydina Issa toxale Cambérène fa la mu nekkoon ci ndinga la andi ko fii 1914 ngir marqué dak dat ba la baayam tabax tegoon mu ne sama baay ak wàlla inni abdullahi aataani alkitaaba wa jaalani nabiyan aynama kuntu wa jaalani mubarakan aynama kuntu fu mu nekk rek garaatu nabi lay yor moo tax mu ñëw 1914 jamu waxoon ba mu jotee si la sañ ci Cambérène nga xam ne ci la ñuy ubbee bés bi tey ren di 33e édition ñu bari seetluwuñu ko woon ndax dañu topp 132e anniversaire ñu ngi xool si 132e bi waaye ren mooy 33e édition ndax Seydina Isa mu ndaw bàyyi laay alayhi salaatu wassalaam yeneen ci bi dana bu fi jógee Isa kay óotu moo ne man bu ma fi jógee Isa may óotu ba taawam ci doom yi muy Seydina Isa waaye taawam it ci sët yi tudd Seydina Isa ibnu Seydina Mandione kooka la yàlla def téeméeri at yi tombe ci sët ba ñu ne maam sët ba mooy maam ja nee nañu boo jëlee doomu gerte nga suul ko du génn gerte ci saasi day génn garab garab gaay màgg door a génne gerte ba nee na noonu la sët ak maamam mel maam ji mooy gerte bi garab ga ca sax mooy baay bi gerte yi ca génnaat mooy sët bi moo tax bi bàyyi lay oote oote bi ba yi atam di mat mu tommeeg sët bi sët bi tuddaat Seydina Isa lan la oote woon ngir màggal centenaire téeméeri ati oote Seydina Limaam muy un xanaa mooy jënax ji gaa yu bari xalaatuñu woon foofu xam nga ay pax dañuy wax ne jënax ji jëkk a génn rek moom lañ naan jënax a ngoog yi si des yëpp beneen a ngoog dóora la waay jaxbal waay beneen a waaye téeméeril at bi lañu doon màggal ñu doon def unième deuxième troisième cent 132e anniversaire waaye ren mooy 33e édition muy ati Seydina Issa yi yonente bi woon ne Seydina Issa buy yéeg ca at buy wàcc at yi mu yéegoon lay wàccee muy at ak ñett kon nag nu ngi ci sant yàlla waa ida jaa nasrullahi wal fath wa raayta naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja lan la ko yàlla fa sabbih bi hamdi rabbik wastaghfirhu innahu kaana tawaaba nu ngi sant yàlla di ko santale yonentam ba mu waxoon loolu waaye defe naa ñëpp uyu si nañu du dëgg nee na dinañu ñëw ngir gëm baa ñu ñëw ngir xeewlu si bàyyi Seydi Thiaw moomu daana wax ne ah waaye laay bu leen nu tooñ sëy naa limaamu moo nekk Ndakaaru moo fi oote bàyyi leen di woo fi ñaan alaay ko am teen am meew booy gas doo bàyyi sa kër dem di ko gas kër jàmbur nag bañ a nangu dëgg nag bu mu la jaral loolu am de mooy trente-troisième anniversaire bi di su nuyu di si sargal sunu xalifa Seydina Abdullahi yanzilu Isa ibn Maryam ila al-ard fa yatazawwaju wa yuwallidu sëy naa Isa mooy seede baayam waaye Baye Abdoulaye ak njaboot ak naa Isa ñooy seede naa Isa kuy gëstu Isa ba ñu ne la mu ngi nii dinga jëkka laaj benn affaire di nga ne ndax am nay soxna ñu ne la ah ndax am nay doom ñu ne la ah kay ñu yobbu la ci kenn doom kenn ci ay doomam yi moo nekk xalifab Seydina Limaamu tey mu ne la waa kooku nu mu tudda mu ne tur wi bàyyam jëkk tudde boppam inni abdullahi aataani alkitaaba wa jaalani nabiyyan wa jaalani mubarakan aynama mu jël turu tudde abdullahi ibrahima topp sa abul anbiya ibrahima seen jël sët ba bu siiw ba tudde ko doom ji Cheikh Ousseynou daan taxaw fi mu tedd mi ñu dul mu daal di koy tëje nag kamu seede woon ne ashhadu an laa ilaha illah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh dal di jël caat ba tudde muhammadu koo koy seydina isa kon seydina abdullahi ak njaboot ak seydina isa dañuy tegtal seen waajur wi dafa bokk ci tegtal yi ni mu seydina isa doone tegtal ci seydina limaam sang bu tedd boobu nu ngi koy nuyu di taasu si barkeem di ko ñaanal fan wu gudd gu ànd ak wér nuyu ak di sargal ay rakam Mouhamadul Makhtar ibnu Seydina Mandione Imam Bachir ibnu Seydina Babacar ma taxawal leen fii ànd ak samay rakk Seydi Imam Libaas ak Imam nga ci kër caat mi ñu fekk fi sunuy doom sunu doom ji di taaw bi xam nga xoolal rek li ya Seydina Isa sëd ya Seydina Isa sëtaat ya Seydina Isa bay Seydina Isa kole Seydina Limaam rek na ko duma la bàyyi mu ne lay bay ni ma bay doon na wéen wal te kole ka bu ne taw taw ca doom ya mu ne Seydina Isa ñu ne taw sa euh, sët ya mu ne Seydina Isa ñu ne taw sa sëtaat ya mu ne Seydina Isa Seydina Isa am bayraa na ak Seydina Isa mi même ba bale toogee sëy ñu ne yëkkal bii ndax xamoon xëy na bale xamoon nañ dina toog nañu yëkki bii mu toog mu mu jox sëy naa yi daal di mat sëy di jërëjëf du noonu sa maam dafa kole sa maamaat rek ne du ko bàyyi am de kole ka fu bàyyi laay génn rek mu génn ne ko dooma fi bàyyi de ina matima najliamamillah <laughs> almahru bil xayri wal karam ina matima waaw أرسلني هذا الغلام يتمه بلا وامي مامدو ساخير نانا وكان سيدك شمس في كبد سمائي ليس طلوع شمس ما بقى ظلمي ساخير كاي نانا راو لايسا وكان ركنا على الاسلام مرتفعا وفاته كهمود البيت في الادم يا لين جن باي دوسين مروم Seydi Rasul nga ilaa sawdul misaali waya waa ñoo ñëw wa Seydu Laay nee na baayam hmm. zawjul misaali waya abal masaakiina baay mooy zawjul misaali ويا أبا روف ويا أبا المساكين فني مطمئن نيامي مام سيدنا يسارو ولاي sa doom ja Chérif Ousseynou Laay mi ñuy jooy te noppeeguñu nee na hmm. ajaban bi man warisal makaarima min abin bay Ousseynou Laay nee na zarat maali mu amri fil abxuri arafa albiyaaru madiyakum wa maqaamakum maada ala al insaanu in lam yaxtari bàyu seynu laay nee na yaa rakiba autobus xif haadi kambareen daaru iseero walaayi ajmalan na sami ñu ne ko mooy kan mu ne mooy huwa alladi xalafa بأحسن سلف تبارك الله هذا أمة الأجمي باي باني والعلمت ويخنت أنني أموت إن جاء أجلي وإن مت ولم يتم ما أمرني ربي باي شريف أسين لاي تولو تجرم ينتيات لما مكم دويني كوتس تكتم بغم تامن بولبتي كوك مومني دينا دم بوسما دم جوتي waaye li ma yàlla yónni bu ma tulee gone gi moo koy mottali rowalaay isaa nee na ku ma gisul du gis sama baay ku gisul sama baay ajjana doo ca jaar bu keroogee mam siidi la ñuy tiim nan ko yow lañu am yaay aboori jaal borom taax mi tugal wax ak sa borom tey bis bi lool mu ne ñokket daal di daagu kenn yënguwul col gu sella tempani ba ak jëm koy gorom jamu yoor Seydi doy na kéemaan ñu jiital baayu Momadul Amin laay naan ku yaay ruwul addli sa baay Seydi mooy ruwul maxfirati sa xarit boobu mooy ruwul izzi sa xarit boobu mooy ruwul maxfirati mm-hmm. mu daal di daagu dëgmal jàmmalaay ñëw fëgga limaamu kumbandooy borom jàmmalaay jóg ca sawee nomba fëgga ñañami di ko kooku kan mu ne ko mën a taaw kooku kan la mën a mm. kooku kan na baayu baayu Ousseynou Laay mu ne ñokket ni ñaadam ñaadam ba ci yaminu aras bëgg a kabar yàlla ni ko déedéet laajal loo laaj ma jox la ndax yaay Muhammed demba ca mag mm. sa maamay maa duyu ca jàmmalaay borom woote bey Muhammed sa maamay aamidun sa maamay mahmoodun sa maamay aaxibun sa maamay daaha sa maamay yaasin sa maamay ingliilun sa maamay muzammil may sama may abdoulaay abi balaay sama may najiyalaay sama may safiyalaay sama may kalimulaay sama may xaatimul anbiya wa imaamil mursal dëgg-dëgg mooy rasoolulaay

ilaa law yónneen ba moo di baay laa bilaay tambur ba jëm na limaamu laaya yowoote diine firdawsi ak waa arasa dëggal na baay laa my life. jërë ngeen jëf jërë ngeen